nga xam ne waaw en réalité suñu suñu delloo tuuti ci ginnaaw verdict du bett kenn parce que ce qu'on a remarqué ces derniers temps mooy toutes les arrestations préventives yi c'est comme si on était en train de décapiter benn parti pour préparer dara beneen bi ñu gis ne Ousmane Sonko dañ ko jël ci euh, yoonu Dakar yóbbu ko këram barricadé ko fa tëj ko fa c'était pour dire quoi parce que depuis personne n'arrive à le voir il n'arrive pas à sortir c'est comme si les gens préparaient en tout cas à ce verdict pour yombalal seen bopp affaire bi mooy bu ñu nee verdict bi daanu nañu dugg biir këram ni ko coppet génne yóbbu prison li nga xam ne nag narta yomb euh, ñu jàpp ne. ñi nga xam ne narta yomb. waaw narta yomb parce que quand même c'est une force dans ce pays. Mm-hmm. la preuve tey quand on dit l'économie ñëpp lépp tëju na. Mm-hmm. c'est parce que c'est Ousmane Sonko. Mm-hmm. c'est pas man c'est pas Adama. ñu ñu dem ci beneen beneen beneen aspect boo xamante ni c'est c'est c'est totalement dangereux parce que tey si si on dit que l'État n'était pas au courant man gëmuma ko procureur dafa dem ba ci biir. indi beneen aspect mooy li muy wax requalification c'est-à-dire de viol à, hmm. à mais le procureur il avait tous les éléments je suppose il avait tous les éléments en sa il avait la possibilité d'entendre tous ces témoins là yi nga xamante ni défilé nañu au tribunal hmm. donc il y a rien de nouveau sous les cieux ba nga xamante ni dañuy dem ba jusqu'à la fin du procès ñu ne dañuy requalifier les faits hmm. pour moi l'idée c'était quoi dañ ko bëggoon a jàpp wut fu ñu koy teg Sénégalais yi dofuñu même les plus républicains se disant bon ok xëy na ñu ngi wax ni complot dafa am mais nañ dem ba procès mu leer ci ñun. d'accord Abdoulaye tegal ma foofu rek sa loxo tuuti ñu dem euh, fi nga xam.